الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله لا يخفى عليكم ما يجري هذه الأيام في كثير من البلدان لا سيما في بلدنا هذا إخوة الإيمان فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الفتن في آخر الزمان وحذر منها وأرصد إلى ما يعصم منها ومن أخطر الفتن قتال المسلمين بعدهم بعدا وقد حرم الله دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم ومن أخطر هذه الفتن وأضرها على المسلمين فتنة النساء بسبب التبرج والصفور والاختلاط بين الرجال والنساء وقد قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة هي أضر من الرجال بالنساء متفق عليه إخوة الإيمان وعندما نحذر المسلمين من المظاهرات لا يعني أبداً أننا نرضى بالظلم الحاكم لا ولكن نقول يسعى في النصح لهم بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu ñu tàmbalee ci turu yàlla ñu ñépp lu ñu bokk ànd seetlu ci jamono ji ñu nekk mooy ay yëngatu ci réew yu bëree bëree bëri rawatina réew mi nu nekk yëngatu yoo xam ne deret tuuru na ci alal yàqu na ci yàq am na ci lu bare bare bare bari loolu nag li muy tekki mooy yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam lim ñu waxoon rek moom mooy nekk te lenn du nekk lu dul li muhammad waxoon sallallahu alayhi wa sallam moo ñu waxoon suñ demee ba àddina di waaj a jeex yëngatu bu bari dana am nit ñi dalañ gis yàqute gis deret bu tuuru gis alal ju ñu yàq ci gox yu bare bari yi ñun sax dem nañ ba sonn ñun waa réew mi ba fu ñu mujj ji mooy dem ci bàmmeel yi yee ñu fa tëdd ne leen kaa leen ngeen dimbali ñu ndeysaan Sénégal dañoo sonn ba dem ci bàmmeel yi di yëkkati ñu fa tëddoon semaine bi passé yépp bandu maam Abdou Dabbar Malik la ñuy teg mooy dañoo amatul pexe ñu dem ba bàmmeel yi yee ña fa nekkoon ne leen kaa leen ngeen dimbali ñu ndax yéen rek kay wax nit ñi dégg ndax nit ñi toog mbokk yi kenn du wax ay nit du ngeen feeñal seen mer kenn du wax ay nit du ngeen mars waaye nag danañ wax ay jullit du ngeen yàq te yi ñuy toj mairie yi ñuy taal impôt et domaine yi loolu jaaduwul kenn waru seetaan ay jullit di yàq bu ñu yàqee alal réew mi alalu kan lañ yàq alalu jullit yi alalu baadoole yi ñu ngi sonn àllum neen di yàqaat lii ñu yàq semaine yi ñu passé bala ñu koy defaraat coono la de mbokk yi deret ji tuuru yàlla bëggul deret bu tuuru mbokk yi kenn du wax ne nag suñuy wax lu mel nii dañuy tere jullit yi wala di leen wax ne bu leen feeñal seen naqar déedéet bu leen feeñal métit gi ngeen di dund ah kay wax leen ko feeñal leen ko waaye nag na ànd ak yar na ànd ak teggin bu mu am toj oto yi daw buñ jàppee oto yi taal ko est-ce que yéen jàpp ngeen ne bisa ngi ñëw njiitu réew mi yéeg ci oto yi ñuy yéeg ñun du ci mës a yéeg ministre yi duñ ci mës a yéeg kon buñ jàppee oto yi toj ko li ci gën a doy waar mooy bàyyi ba courant bi coupé ay nit jël ay jaasi di koj ay nit di dajji di arrêté di toj di palpe ñu nekk ci biir oto yi di jël seen alal loolu est-ce que ci marché la bokk loolu ci sàcc la bokk loolu ci yàq la bokk te ab julit borom bi tabaraka wa taala wax na ci alquran wala tubazzir tabzira inna almubazzirina kanu min ixwana alshaytan wa kana alshaytanu li rabbihi kafura yàlla nee na bàyyi leen yàq ndax yàq seytaane moo koy def yàlla ne ku bàyyiwul yàq yow mbokk seytaane nga mbokk yi ndax dañoo bëgg nekk mbokk seytaane nan lañ ci yàlla musal ñaareel bi mooy yonti yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam dénkaane na wax al fitnatu naaima laana allahu man ayqazaha mu ne fitna rem ngi nelaw yàlla rëbb na koyee gis nga nit mën ngaa taal fitna waaye xamoo fu mu yem moo tax ñun ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ku mu mën a doon mbir yi xew dañ ci am responsabilité bu ñu tàmbalee di yàq kenn dootul nekk ci sécurité su deret na ab tàmbalee tuuru kenn ci ñun dootul raw kenn ci ñun dootul mucc kon olof yi dañuy wax ne mbay ci sa weewu tànk nañ ko tàmbali ci sunuy kër wax ak sunu njaboot kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kenn ku nekk sàmmkat nga te ëllëg yawmal qiyam dañ lay laaj li nga doon sàmm mbokk yi innama nuhaziru almuslimina min almuzaharat fa hal hadha yani annana narda bi zulmil hakim la jamono ji ñuy dénk jullit ñi di waxtaan ak ñoom ak di leen dellu si seen xel est-ce que dafay tekki ñun dañoo nangu tooñ gi ñuy tooñ di ko fell ci sunuy àq lu ñu war a am duñ ñu ko jox li war a am kenn du ko def déedéet ci jamono yooyu dañuy dénk jullit yi lu ñu yëngu yëngu yëngu ñu xam fu ñu yem lu ñu feeñal feeñal seen mer ñu xam nuñ koy feeñalee lu ñu génn génn ci mbedd mi ñu xam li ci bokk ak li ci bokkut waa ji jël otom teg ci tali bi di daw di joxe soxlaam kooku lu ci yoonam ah liggéeyukaay bi nga xam ne ay boroomam liggéeyu nañ ba wàcc foofu lan moo ci yoonam nanu bàyyi xel bu baax a baax lu nu mer mer mer ñu bañ a topp seytaan bañ a topp suñu tàngaayu yaram di yàq lépp lu ñu yàq après ñun ñoo koy récolté waat ëllëg ci sunuy mbagg ci sunuy loos képp kuñ fi tuur deretam donte ne toq la yàlla yowmal xiyaam xamul courant bi dafa coupé woon da nga ñëw jaab bi jaasi dóor waa ji loolu sunu biir la mais yàlla moom alaysa allahu bi ahkamil hakimin yàlla daf koy attewaat ba mu jub xocc waa ji nga tuuroon deretam di nga wax yàlla lu tax nga tuur ko kon nañu bàyyi xel loolu nañu góorgóorlu ci sunu bopp yar sunu njaboot yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy tandikuloo nañu jubal nañu ci lépp loo xam ne def ñuy indil fitna yonent bi génn nañu ci wa min axtaril fitan qitaalul muslimina baaduhum baado li gën a rëy ci jullit ci musiba mooy jullit ñi di reyante seen biir Muhammad gàddu jaasi Abdallah gàddu jaasi Abubakar gàddu jaasi Ousmane gàddu jaasi ñuy dóorante seen bopp loolu moo gën a moo gën a bon ay jullit yuy reyante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaari nit bu ñu reyantee ñoom ñaari ñëpp safara lañ jëm ñu ne ko yonent bi lu tax mu ne ndax kenn ku nekk dafa bëggoon rey moroomam kon ñoom ñaar ñëpp seen yéene la leen yàlla di fay ñoom ñaar ñëpp safara lañ jëm alqaatilu walmaqtulu fi nnaar ki rey ak ki ñu rey ñoom ñaar ñëpp safara lañ jëm lu tax ndax kenn ku nekk li taxoon nga génne jaasi ji sa poos ngànnaayu mooy bëgg a rey sa morom maadaama nag moom njëkk na laa rey yéen ñaar ñëpp fayam mbokk yi yàlla bëggul ku rey nit yàlla bëggul ku tuur deret borom bi wax na ci quran képp ku dundal benn nit fa ka annama ahya nnaasa jamia benn nit soo ko dundalee mu ngi mel ne dundal nga àdduna yépp waaye soo reyee benn nit fa ka annama qatala nnaasa jamia mu nga mel ne rey nga ñëpp waaye yàlla dafa wax sax ne wa man qatala muminan mutaammidan fa jazaauhu jahannam képp ku rey jullit te yaa ko tey yàlla nee na yow jahannama nga jëm kon deret jullit nekk lu yomb bakkanu jullit nekk lu yomb yàlla tabaraka wa taala moo ko bindu moo ko moom kon kenn amul droit di ko tuur rawatina nag ci ay mbir yoo xam ne mbir àddina la lii yépp ñu leen di wax rek chaque jour yàlla moo ñuy won boppam comme ñun gëmuñu sunu diine gëmuñu lislaam lu nekk jaral nañu reyante ba mu des islaam li El Hadji Omar di wax li kulli mayitin mu ne képp ku dee rek am nga ku la jooy mu ne ba mu des lislaam képp ku dee am nga ku la jooy ba mu des lislaam su lislaam amee naqar kenn du jóg waaye ci ay lekk ay naan yoo xam ne ay leneen ci wàllu àdduna saa yoo déggee sénégalais di ñaxtu mbirum lekk lay ñaxtu mbaa mbirum naan mbaa mbirum dund abadan ñun ñun ñaxtu ci mbirum lislaam ay góor jigéen jaar nañ fi ñépp noppi jigéen ñaa ngi jaay seen bopp ñépp noppi sàngara saa ngi nii tasaaro ñépp a ngi noppi col gu bon gaa ngi nii ñépp a ngi noppi dem nañ sax ba léegi la hawla wala jigéen dootul woot weenu jigéen nekkatul awra pooji jigéen nekkatul awra li muy jiital nekkatul awra lépp a ngi ci biti kon lii di dal sunu kaw du hasard ndax yàlla tabaraka wa taala moo wax ci alquran wala nabluwannakum bi cheyin min alxawf waljuu wa naqsin min al amwali wal anfusi walsamarat yàlla nee na dinaa leen natt wala nabluwannakum laa budda bil ibtila foog yàlla nattuñu comme dañoo jàdd yoon bi foog yar bi tegu sunu kaw bi cheyin min alxawf yéen ñëpp di ngeen toog ngeen tiit mooy li am tey ñëpp a tiit njiitu réew mi moo gën a tiit ñeneen ñëpp a tiit ki ci gën a mag ba ki gën a suufe ñëpp tiit Sénégal parce que yàlla moo ko wax minal xaawuf yàlla nee na di ngeen tiit kenn suñu nekkatul ci sécurité wal juu di ngeen xiif ngi ni ñëpp xiif démb Sénégal doo fekk ñuy jaay fonde ci mbedd démb Sénégal mag ñaa ngi ni toog doo fekk ñu jaay fonde ci mbedd doo fekk ñu jaay ay cere ci mbedd doo gis mukk Sénégal ndax xalaatoon ngeen ni bis a ngi ñëw ñuy jaay ataaya lu ko waral mooy xawf juu xiif yàlla moo ko wax wallahi yàlla moo wax dëgg wallahi min al xawf wal juu tey mu ngi nii ku nekk li nga am doyu la ñii bu ñu añee duñu reer ñii bu ñu reeree duñu dékki am na ñoo xam ne sax duñ ci jaar la hawla wala quwwata illa billah wa naqsin min al amwal yàlla nee na alal ji ngeen am dinaa dindi barke bi damay wàññi alal ji ñaata yoon la ñu dévaluer CFA bi combien de fois ñaata yoon la ñu dévaluer CFA bi ñaata yoon tey li ngay am cinquante mille salaire cent mille cent nangam dara amu ci njëriñ boo fayee ko ba teg es yi daal di koy lekk SONES SDE Sonalec Sonatel es yi ñëpp daal di jiiroo sa salaire lekk lépp yàlla nee na wa naqsin min al amwal waaye wal anfus gis ngeen nit ñi ni ñuy deewee ci at waxuma xoolal Sénégal at yi li fi nit di dee kenn xamul nu doon léegi rey nit du dara comme nit ñi moom seen bakkan ak xottu gerte mooyem allahu akbar ak nit valeur bi ko yàlla jox nga gis doomu aadama tiim ko di ko dóor jaasi wala di ko jam paak wala di ko jam budde ah wala di ko dóor bal ci bopp yowmal xiyaam mi ngi ñëw de mi ngi nii soriwul wallahi yowmal xiyaam mi ngi ñëw mi ngi nii jege soriwul doomu aadama yi inna anzarnakum azaban qariba wala yàlla loolu la wax waar naa leen ci mbugal mu jege yowma yanzuru almaru ma qaddamat yadah wa yaqulu alkafir ya laytani kuntu turaba yàlla nee na waar naa leen ci mbugal mu jege bis bu nga xam ne doomu aadama lépp lu mu defoon yawma yanzurul mar maa qaddamat yada lépp lu mu defoon ñu jóor ko ci kanamam ne ko sa jëfa ngi nii bu fekkee ku doon jaamu yàlla la nga dégg mu naan ak a neexoon ma nekk suuf yàlla bañ ma def mbindeef di ma fay aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم بقيت يا الله تبارك وتعالى يندي على محمد صلى الله عليه وسلم ني فاتلي تي خاو خاو yu mel ni ci jamono bu lëndëm ci jamono bu tar ci jamono bu metti bi yonent bi nee na gaawtu leen baadiru bil amali gaawtu leen bëri jëf yu baax yonent bi nee na maa ngi seen musiba mu mel ne lënd mu guddi di ñëw di wàcc seen kaw fitanan ka qitai leylil muslim man yonent maa ngi seen musiba di wàcc seen kaw nekk ay waame di walangaan mel ne daggitu guddi ka qitai leylil muslim mu ne yusbihu rajulu muminan wa yumsi kaafir nit day xëy nekk julit balaa ngoon mu nekk yéefér nit ngoonu nekk julit balaa bët set mu nekk yéefér xëy nekk jullit balaa ngoon nga rey jullit yëfër nga xëy nekk jullit dem taal loo warul taal yàq loo warul yàq toj loo warul toj yusbihu rajulu muminan wa yumsi kaafir xëy nekk jullit julli fajar ci jàkk ji balaa tàkkusaan jot nga nekk yéeféer bu ñoon ko nga ngoonu nekk jullit balaa bët setaat nga nekk yéeféer ñu ne yonent bi loolu nu mu mun a nekkee xëy nekk jullit balaa ngoon nga nekk yéeféer ngoonu nekk jullit balaa bët set nga nekk yéeféer loolu nu mu mun a nekkee mu ne yabiu diinahu day jaay diineem diineem lay jaay day jël diineem daaxe ko day jël diineem daaxe ko addunaam mooy li ñuy def tey sunu diine la ñu jaay ñu ñëpp amuñu ngor moo tax yàlla wàcce yar sunu kaw lii du dara yàlla moo wax dëgg ci quraan ni nit ñi saa yu ñu jàddee yar tegu wa man arada an zikri fa inna lahu maisatan maasa fa inna lahu maisatan danka wa naxsuruhu yowma alqiyamati ama yàlla nee na cere ji maa ko moom maa xiinal asamaan wàcce taw bi saxal dugub bi ñoral ko su ngeen ko góobee yóbbu seen kër iñaane ma ci mëtti bu tànk suuf sotti ko ci ku ko bëgg a lekk ku ko bëgg a reere boo tànkee première tànk sa loxo du dugaat loolu mooy su ngeen bàyyee yàlla ngeen dund dund bu métti mooy dund bi ñuy dund nii dund bu métti dund bu karaj ma isatan dankan mooy dund bu karaj mooy dund bi sénégalais yi di dund dund koo xam ne amul barke ni ñaa ngi daw guddeeg bëccëg topp adduna mbone ngi tasaaroo yàqutee ñëpp a ngi loof ñëpp a ngi sonn deret a ngi tuuru safaraa ngi tàkk lu ko waral ndax dañoo dum mooyu yàlla yàlla moo wax ci alquran nit ñi bu ma buñ ma gëmee walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw maza yafalu rabbuna maza yafal la fatahna alayhim barakatin min alsamai wal ard yàlla nee na nit ñi bu ñu ma gëmee nit ñi la wax yàlla réew yi bu ñu ma gëmee yàlla nee na damay ubbi xéewalu asamaan dama koy ubbi la fatahna la wax barakatin min as-sama damay ubbi xéewalu asamaan ma ubbi xéewalu suuf adduna bi daal di neex dëkk bi neex ñëpp di yaataa yimbe xel yi dal waaye kañ buñ ma gëmee waaye kon dañ maa weddi kon nanguwuñ maa gëm nanguwuñ maa topp nanguwuñ topp sama téere nanguwuñ roy sama yonent yàlla nee na ma mbugal leen mbugal bu metti fii nii ñu toog ci mbugal la ñu nekk yàgg nañ taxaw ci kaw minbar bii ci bisu aljuma ci waxtu wii di leen wax ne Sénégal bu ñu tuubul ci kanam rek la jëm yar bi day gën a metti ndax ñun ay jullit lañu loolu la ñu wax quatre-vingt-quinze pour cent dañu ne ay jullit lañu waaye dafa feeñul fenn loolu moo tax yar bi di metti bu ñu gëmoon yàlla yàlla ubbil ñu xéewalu asamaan ak suuf comme dañoo lànk yàlla ne foog ma nattu leen yonent bi nee na waa ji day xëy nekk jullit waaye balaa ngoon mu nekk yéeféer lu tax yonent bi nee na dafa jaay diineem yabiu diinahu bi aradin min addunia dafa jaay diineem dafa jaay ngorom dafa jaay jomam dafa jaay xoolal tey ñuy jaay seen bopp am na ci réew mi ñuy jaay seen bopp ay góor ak jigéen am na ñoo xam ne mënatuñu nekk jullit ndax mbirum àdduna ndax ay poste ndax ay ndomba tànk ay ndomba tànk tax na tey ay nit mënuñu wax dëgg kenn du wax dëgg kenn du wax dëgg kenn du jëf dëgg fu ñu jëm moo tax ñu sonn moo tax ñu dem ci armeel yi yee maam Abdou ne ko kaay dimbali nu ndax yow yàlla rus na la ñëwal gis ngeen waxam keroog la ñu yendoo teg ah loolu mu waxoon kañ la ko waxoon ñaata at loolu tey nekk suñu kaw dëgg mu naan waa assemblée bu ñu leen indi leen mbir nañu xool li ñuy woote wala kañ la ko waxoon ci ban année ci ban assemblée ci yan nit la ko doon wax loolu tey dëggu ci génération bi nekk fii dëgg benn kese la alxaqu waahid dëgg benn la te alxaqu yaalu wala yola alayhi gis ngeen kaw dëgg wallahi ci kaw rek lay nekk lu mbir yi njool njool lu mbir yi yëngatu lu mbir yi gudd gudd dëgg benn la mooy lan mooy kàddu yàlla tabaraka wa taala dara mun ko féete kaw alxaqu yaalu wala yola alayhi dëgg yàlla gi mooy nekk ci kaw bu yeboo ñu dellu ci dëggu yàlla bu yeboo ñu gëm alquran bu yeboo ñu gëm sunna bu yeboo ñu góor góorlu ci sunu diine xam ne yeneen yu ñuy wax yépp ay caaxaan la fii la yem eggul alaxira yàlla tabaraka wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na waa jooju day jaay diineem ci mbirum àdduna tey foofu lañ toll ñun ñëpp àdduna lañ gëm àdduna rek koo fi gis lu ko tax a nelaw mooy kër bu rafet oto bu rafet soxna su rafet lépp lu rafet tout na rafet waaye yàlla moom bokkul bu dee lekk na neex lal na nooy oto lépp adduna rek moo ñu tax a jóg fàtte nañ ne yàlla moo waxoon bal tusiruuna alxayaata addunya wal axiratu xayrum wa abqa yàlla nee na adduna rek ngeen gëm waaye alaxira gën a ngeen di dégg moo gën te mooy des adduna day jeex alaxira du jeex allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ala ittibaai وارنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسالك ان تردنا على دينك مردا جميلا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك قبل الموت توبة نصوحا وعند الموت شهادة وبعد الجن وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربي اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة